maaleykum salaam Babacar. waaw nga xaw a sori micro bi tuuti euh, euh, ingénieur euh, géologue sunu gan Ibra sec nekk directeur des carrières ca ministère des mines et de la géologie nga jiite itam association des géologues du du Sénégal politique itam dañ ko waxtaan ak yow waaye dañuy njëkkee li nga xam ne mooy seenub liggéey ak ministère ba nga nekk fan yee dalal nañ fi bijoutier yi. ñuy wax ni euh, li ñu war a am ci or ñoom duñ ko gis or bi yëpp euh, Sénégal jaay na ko ba lim fi sax ne seize mille tonnes ak lu tegal at mu jot mooy génn ci or euh, ci réew mi di dem looy tontu ci loolu njëkk. waaw d'abord damay nuyu auditeurs yi di nuyu waa RFM di nuyu nit ñuy déglu ñëpp di gërëm waa RFM ci invitation bi. waa bijoutier yi déglu len euh waye d'abord pour précision bi ma précision bi ma bëgg def rek moy 16000 tonnes tonnes euh ci Sénégal. ñaata moo genn 15,81 tonnes mo genn en 2021. donc lolu moy Sabadola ak euh, PMC ak Afrigold exporté waye bu lolu wesso aussi euh amna ño xamni ñun naan euh, les orpailleurs ak ñi nga xam ne yor nañ autorisation semi mécanisée ñooñu aussi dañuy produire or di ko jaay fii ci biir dëkk bi. ñaata la ngeen estimé. waaw bon xam nga ñoom aussi seen production euh, neexute estimé parce que dafa bëri loo xam ni c'est informel parce que ñoom or payeurs yi euh, du fay état donc ñoom dañuy gas rek dem jaay biir Kédougou wala ñu génn Mali jaay. mais est-ce que du looloo tax kon ñi bëri boo dégluwee sénégalais yu bëri dañuy nee Euh, am nañ ay ay ay zircon am nañ or kenn du ko gis dañ koy jël sax saaxee ko. waaw xam nga euh, or bi sénégalais yi ñi ci bëgg am mën ñu ngi ciy am parce que tey jii boo demee kédugu européen yuy gas or bi maliens yi ñu ngi fay ñëw di jënd or parce que maliens yi dañuy financer matériel bi bi gars yi gasee ba or bi génn ñoom ñu jël seen part donc or mu doon loo xam ni. pour nga am ci dëgg-dëgg foog nga ñeme coono aussi am na ay bijoutier léegi yoo xam ne commencé nañ organiser wu di am ay permis semi mécanisé parce que état bi daf ko organiser de telle sorte que euh, semi mécanisé mooy cinquante hectares sénégalais bu bëgg permis semi mécanisé mën nga ñëw au ministère des mines et de la géologie def sa demande ñu jox la nga dem wër. am na ñuy gas tamit te du ngeen leen xam du ngeen leen gis ñu ngi ci seen ruq gas kàmb. di di jeex ak càmbar te te kenn mënu koo xam am na. waaw moom laa lay wax mooy hors yi parce que loolu c'est c'est c'est informel ñooñu euh, état bi euh, mi ngi ciy def li mu mën nag. ñoom soxlawuñ kayit. waaw léegi xam nga état bi en 2013 2014 euh, dafa génn ay arrêté yoo xam ni dafa créer ay couloir ba pare créer ay carte hors ni léegi ku bëgg a gas da ngay ñëw ci couloir yi ba pare am sa carte hors mais des fois nak nga gis ci ño xamni da danañ laqatu dugg ci all bi jéem gas yo xamni bo état bi du ci du ko yek waye heure bu ko état bi yëgee tamit day am ay sanctions yo xamni day. tegu Sénégal ñaata la ci am concrètement. wa xam nga euh, Sénégal d'abord dina am 10 yo xamni action gratuite la euh, entreprise bi bu ñëwé euh, di di wër déjà dinañ ci am 10 action yo xamni état bi du ci dugal ñaar dërëmam bon bu leewlu weesoo aussi dinañ fay redevance bu à exploiter dina fay 5 pour cent euh, du chiffre d'affaires dina ko fay état ak yeneen taxes yoo xam ni impôt da koy jël eaux concrètement nee 15,8. 15 virgule 8 euh, la ñuy jël 15 virgule 81 sunu waa sunu waa dafa juumoon rek 16 000 tonnes xam 16 tonnes la bougon wax 16 tonnes xam naa loolu la bëggoon wax waaye loo ci mënti am presque 16 tonnes. 16 tonnes or moom wax dëgg yàlla alal la waaw alal la. te li mu laaj mooy ñaata la ci xaalis ak ñaata la ci Sénégal di am. waaw moom laa lay wax xam nga Sénégal tey jii boo jëlee année 2021 bi 185 milliards la am ci secteur extractif bi. kese képp. waaw 185 milliards yooyu mooy li nga xam ni entreprise yi dañ koy fay recettes yi mais nak bu lolou wesso aussi Sénégal économiquement da ci gagner parce que entreprise yi dinañ jël ay euh, employés yo xamni sénégalais la aussi dinañ développer non non bala ñoo yegg si <laughs> ay euh, activité économique ci biir monsieur Seck directeur des carrières ministère des mines et de la géologie euh, lu tolok 16 tonnes ci or di génn ci réew mi. Sénégal am 185 185 milliards kese. kese waaw moom laa lay wax xam nga lépp aussi code bi moom moo ko parce que code bi Sénégal moni, ni ku exploité di nga jël 5 du chiffre d'affaires. ñun kay waxuñu ay code ak dafa ma mais mais entreprise bi aussi ci code bi rek la mën a basé wu pour fay. mais justement kon code bi code bu ñu war a tëggaat la xanaa. waaw code bi tëggaat nañ ko parce que 3 la won, mais léegi ñu ngi ci 5 pour code bi aussi euh, y a le code de l'UEMOA boo xam ni Sénégal mun ko jéggi dem di indi ay taxes yoo xam ni yeneen pays yi mu bokkal UEMOA teguñu ko kenn parce que boo ko fi defee gars yi mën nañ la bàyyi dem ci yeneen dëkk. Ah, parce que la la la conséquence de tout ça mooy que zone boobu déjà boo xoolee Kédougou lu ñuy fay exploiter yëpp lan la leen njëriñ est-ce que du loolu moo tax wane ne ni quelque part euh, mine yooyu sax amul benn njëriñ pour les populations. ah si si si population yi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax ah waaw waaw parce que orpailleurs yi dañ ciy am xaalis tey jii Kédougou man mi Kédougou def naa fa quatre ans liggéey ci société minière mais jeune Kédougou yu bari ñi ngi dem ci orpailleurs yi di gas. waxu ñu lolu de. di am or aussi euh voilà di di di di di di. Kédougou bokk na ci région bu gëna a pauvre ci réew mi. wa mais population Kédougou la la wax ñu ci bari ñi ngi gis seen bop ci or bi parce que tay ji yow boo bo démé Kédougou je ne sais pas est-ce que mus nga fa dem am déet mais di nga gis. euh sénégalais bari ñu ci or li Aliou Modou laaj waxul ak mané manebar yi dem ñu leen di liggéeyloo. Euh, te demeewul noonu li mu wax mooy ni dëkk yooyu néewee doole euh, ci koom-koom dellu ginnaaw jumtukaay amu fa. courant bay coupé ndox mu sell amuñu ko. Euh, école ya ma nga noonu loolu la ñuy laaj nan la alal ju mel noonu di génnee ci suuf su mel noonu ña dëkk ci kaw suuf soo soosa sonn. waaw mais xam nga entreprise minière yi ñoom képp ku ci ñëw di exploiter di nga fay lépp loo amee état bi dinga ko ko fay am na loo xam ni day dem ci budget bi. amna lo xamni état bi da koy wat ci ci ci askan bi ngeen dello ci askan bi parce que dans ni entreprise buy exploité di nga jël 0,5% chiffre d'affaires hors taxe nga dugal ko ci commune bi nga xamni projet bi impacté aussi dinañ jël 20% des recettes ñu ñu ñu ñu euh, les collectivités territoriales donc euh, dans beaucoup euh, de régions yi nga xamni mine amna fa bon peut-être yéen da ngeen gëj mais man mi fa nekkoon ak boo fa demaatee fan yi di nga gis ni Kédougou am changement. <laughs> léegi dañuy dañuy calculer ah fi mu gramme or ñaata lay jar ci Sénégal. xam nga or aussi par carat la tey or bi nga xam ni vingt quatre carat la mu ngi ci trente six mille. trente six taxawal. Mm. Euh, gramme bi. Euh, euh, kilo ñaata gramme la Hein? ah c'est 1000 grammes. donc 36 000 fois 1000 maa vous calculer nii de <laughs> Égal 36 euh, millions euh, euh, une tonne la 1000 kg. 1000 kg. ñu 36 millions. fois 1000. bu ñu bañ a fàtte. zéro yu <laughs> déjà bu tonne 360 millions. waaw nga jël ko par par 16 égal. Euh, chiffre yi bari na de. mënuñu li mënuñu ko calculer. non non non xam nga Babacar eh, aussi ni mu ko bëgg a calculer du demee parce que gis nga euh, société minière yi aussi du euh, dañuy génne or bi noonu rek jaay ko am nan ay charges donc exploitation minière dafa laaj ay charges yu 10 a diis donc ñoom charges yëpp dinañ ko génne fay état bi ay ay redevance am ensuite doo jot seen bénéfice donc boo bëggee calculer prix or bi rek euh, que nous ñu koy jaay mom lañ ci am aussi euh, duñ ci kenn mais eh, yeen par exemple jëgë na 1000 milliards li gën ci or mais aussi mom moy li 1 000 wax 1000 milliards ëpp na ko sénégal a ci 185 milliards c'est combien non 1 000 milliards c'est ngay chiffre d'affaires mais beaucoup de bénéfice parce que la société même même bu fekkee 1000 milliards 000 milliards, wax aussi am nañ ay charges. bu ñu charge même pas de ñu moitié de ça bon c'est parce que <laughs> peut-être le directeur des mines bu Ah, mais non, il suffit de faire un petit calcul pour s'en rendre compte. non non non duñ ko calculer non, parce que Orbi si aussi a un des da ngay génne say charges. mais si elle euh, da des ko bëgg a calculer non, aussi bon mais est-ce que yéen déjà am ngeen xam ngeen eh, concrètement ñaata euh, kilo or wala tonne or ñooy génn foofu ndaxte xaw peut-être demain damay loolu laa dégg ah, xëy na looloo am euh, chaque fois euh, ñom ñom fofu lañu ñu or bi jëlee ko ci ci fofu directement yóbbu ko ci bitim rew du du du jaar Dakar. non non non demewul noonu. parce que xam nga aussi Sénégal parfois. Euh, da ngay seetaan réseaux sociaux mais parfois day am y a beaucoup de désinformation Sabodala bu ñu produire seen or ba pare dañ koy yóbbu ci euh, chambre d'or mooy gold gold gold gold room bi euh, man mi nga mi wax ak yow nekkoon naa direction du contrôle chaque semaine wala chaque deux semaines dañuy ànd ak waa douane ak waa sagam jël avion Dakar dem ba Kédougou ci chambre or bi ñu peser lengo yi légui nak buñ yi ñun ñu ak ba Dakar bi ensuite bi dem. donc fi lay joggé fi Dakar lay ko euh, Kédougou ñu indi ko Dakar. voilà. ok ensuite mu dem donc du joggé directement Kédougou dem. non non non non non lool contrôle comment ça se fait au sur place déjà. bon contrôle bi comment ça se fait bo ñewé euh dinañ la di nga gis nous posons en même temps de nga les fiches d'analyse. vous avez des représentants sur place. bon il y a euh, le chef de service régional mais chef de service régional bi du dem mais direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières bi le ministère de Yoni représentant. lan mo len di wan ni li ñu di. li len déclaré loolu lañu gis bu fekkee am est-ce que da ngeen ko non mais xam nga bo boo tamit indi Dakar te indi Dakar aussi avion indi. est-ce que jaar circuit. non non non. territoire Sénégal kay eh ben, informel par exemple. <laughs> non non non euh, bon informel bi peut-être les orpailleurs mais les sociétés minières. politique non non non mais des ce sont des sociétés qui xam en bourse donc ñoom ay affaire production duñ ci dañ koy léegi dañ bëgg xam euh, est-ce que mën nañu xam euh, nguurug Sénégal est-ce que am na or boo xam ne alalu boppam la mu denc ko lu ñuy wax réserve en or est-ce que am na ci réew mi. waaw Sénégal euh, xam nga société yi bu ñu exploité redevance lañ koy fay bon redevance lañ koy fay ak 10 pour cent yi nga xam ni action gratuite la voilà. nguurug Sénégal amul ay léngoo yu mu denc ci banque yi. bon <laughs> à ma connaissance non. pourquoi. ah bon peut-être directeur des mines bu ñëwee dina ci tontu man carrière yi laa yoro ah. <laughs> mais pourquoi yéen par exemple ci vois or bi euh, do doo euh, une partie peut-être ngeen ngeen jox ko marché local bi parce que quand même les gens ont besoin d'or les dames ñu bëri dañoo bëgg quand même soxla loolu pourquoi ñu jël or bi tout d'un coup yóbbu lépp euh, indiwaat plus cher compliqué c'est quoi. waaw xam marché local bi l'État a un am projet d'installation d'un comptoir commercial d'or. ba léegi nii projet nga nekk. mais xam nga euh, sànq wax que la ko nee na arrêté en 2013 2014 boo xam dafa créer ay comptoir euh, d'or ni lépp képp kuy orpailleur or bo gis da nga koy dem jaay ci comptoir mais malheureusement. Euh, sénégalais yu bari buñu gisé gisee or bi dañuy djéggi dem jaay ko Mali motax euh, jusqu'à présent comptoir yu ci bari doxagul mais nak comptoir bi ma lay wax euh, ñu ngi ci étude d'opportunité yi heure buñ ko installé ba teggi TVA bi or bi dina gëna yomb ci bijoutier yi mais nak bijoutier yi aussi euh comme li ma la wax rek am nañ droit dem def demande au niveau du ministère pour am sen permis bop ñu a ensuite exploité loolu je pense que sénégalais bu ne mën na ko waaw mhm. ah, yéen yéen yéen waa Macky Sall da ngeen doy waar ndax dangay ngay politique yow APR nga bokk euh, Grand Yoff mhm. euh, moom daal euh, leeraay dafa des ci li ngeen di li ngeen di joxe ci ay këyit ak licence ki jaay coowal dante gi leen topp gannaaw ndakaaru ngay politique coowal dante gi leen topp <laughs> ba léegi mënuñoo xam lu tax rek ñu war a xaaj pàkku dante bi Euh, jaay ko am ci trente milliards ne dañuy defar l'hôpital mooy waxi caax jëfu caaxaan googu loolu nu ngeen ko mënee. non non non xam nga Dantec aussi euh, mooy li may wax léegi rek Sénégal dafa bëri manipulation parce que Dantec aussi euh, ñoom médecins yi ñoo def plaidoyer. non lu orienteetuñ ko daan teg moom lees waroon defaraat la loolu moom même si am na débat aussi ci ni ñuy redéployer service loolu waxatuñ ko fi ne ni kay ginnaaw yow ay carrière mooy sa xam-xam mm-hmm. ak ñoom seen nañ dugg ci suuf si lu tax ñu war a jaay suuf si eh, ngir am ci trente milliards kese kese kese jar na ñuy jaay dante état Sénégal mënul wuti 30 milliards tabax hôpital waaw loolu peut-être euh, waa FONSIS ñoom ñoo ko kii bu ngeen demee ci banque yi xanaa ñu lebal leen 30 milliards lu tax ñu war a jaay suuf soosu am na lu ngeen lu ngeen ñu ci waxal fi daal lëndëm na am na lu ci ñor ba gars yi war koo màcc xam na non non non da dara dara lëndëmu ci ban koy ban koy ban koy màcc xam nga FONSIS aussi ñoom ñoo jël option jaay ko donc je aussi euh, j'ai pas tous les détails peut-être inviter euh, invité DG Francis c'est inacceptable c'est un scandale. souffre non non non un ah. scandale Je nga xam nga aussi euh, problème bi du jaay suuf mais problème bi que lan lan fa wara def. mais luñu wax rek état bi jaay état bi xana hmm. bu dotul am dotul am réserve foncière état bi. koy jaay jaay rek jaay pour tabax jaay pour tabax. non non non non non état jaay état jaay état xam am na opportunité wala gis na ne lii am na njariñ pour mu jaay ko mais da koy 30 milliards comme ça munoo leen wuti loolu. waaw moom laa lay wax dama la fond six option boobu la jël peut-être ñoom am nañ seen raison. c'est une mauvaise option. ah waaw loolu sa xalaat pas transparente sa sa xalaat la rek sa xalaat la. am na ñuy jàpp ni da ngeen bëgg a saxal pexe suuf soosu rek. non non non xam nga dossier boobu sénégalais yu ci bari ku la ci wax rek da lay wax lu lu ko neex. man mi wax naa la ko léegi nee naa la amaguma détail yëpp donc mënuma ci xuus donc nag il faut que ñu bàyyi ba am détail yëpp ñu door a mën a voilà discuter ci problème boobu. Mhm. léegi euh, gouvernement bi Macky Sall tamit moom euh, mel ni sax euh, moom amul benn yitte am na yenn bu xëy wax ne fi mu Sénégal amul njiit Macky tukki na premier ministre amul député yi jeexal nañ seen mandat ministre yaa ngi toog seen kër réew maa ngoog. ah mais régime présidentiel la ne président mi ngi fi de tukki na ça ne veut pas dire que ni dëkk bi doxul parce que institution yi amul benn bu taxaw man mi ministère des mines la nek mais ñi ngi liggéey gisuma dal ben ministère bu taxaw wala benen institution bu taxaw. mom lu muy yox yox ci mbirum premier ministre gi xana dafa jafé ci mom ah lolou peut-être mën na ko mën na cee tontu xam nga président mom <laughs> mo am prérogative nommer premier ministre néna dina ko nommer kon nan ñëpp ni tekk déglu ko. est-ce que bu nommé parti bi du du yëngu. non non no parti bu tànnee parti bi moom du yëngu. parti bi moom peut-être euh, opposition bi yëngu mais ñun moom suñu parti. du yëngu vous n'êtes waaw waaw xam nga parti bi moom euh, dañoo def trois ans rek jël nguur gi. Hmm. donc amuñu woon temps structuration. ragalul leen ni bu ngeen euh, ñàkkee nguur gi chacun va de son côté parti bi disloqué wu. oh bon tolloo gu ñu foofu <laughs> am na ñu jàpp nii mandarga yi leen dal fan yii yëpp mandarga yi nguur guy jeex la euh, gëm nga ko. non loolu ñu ko jàpp rek mooy opposition bi mais Sénégal yi ñu voteel kay xam nañ ni ñun suñ nguur jeexagul. waaw. mandat Macky bi nag. Euh, mandat ban la. mandat 2024 ah, 2024. waaw. ah waaw loolu peut-être yow mi ko laajoon ba mu tontu la <laughs> am nga réponse bi.

te ni woon duñ def cumul de mandat ndax dinañ ko def ñoom kay nañ tontu seen bopp ba pare. parce que geneen geneen geneen geneen coow la jërëjëf Ibra Seck euh, directeur des des carrières euh, association géologue yu Sénégal itam yàlla leen jiite directeur des carrières ci ministère des mines ci wàllu politique euh, APR nga bokk bu Grand Yoff ñu lay gërëm. gërëm Mouhamed Ali Mouba gërëm Fati yendoo ak jàmm.